Bienvenue sur Salam Vision. waaw bisimilah. o fogole seereer in way simnaa nuun meeke na Salam Vision euh, ziyaare anum nun fof e ngaƴo leŋ mbege anum mayu meɗana num jam sakoana num yasum siñi borom fannayi in fof i mbaxtanogu mene no walu jafe jafe saate fa sorop côté hôpital fe école fa courant fe ndiiki ta jeg ka garidna maaga xaye no dimanche fe ka farna no matériel ke no dispensaire fe Euh, Mbaye Faye tenre ɗam in maaga yam da ɓisidna bagage ke bagage ke ɓisidena maaga Mbaye Faye ten reɗ'u maaga eh, i nangilwin ta layin bagage ke da atidna maaga xar fo xaro assalamu aleykum grand of i ziare anga paax to njegana wo ɗaay mi yo Babacar Faye gen Sorokh waaw xaye dimanche le 21 février ten i mbi'u réception matériel fe andoona yee monsieur le maire Makodou Alioune Tidane no poste de santé ne pour équipement fe no matériel fene nak a foga teen six lits cong ɓeta fo leŋ six berceau ten refu cong ke xa bébé xe mbonel fo douze matelas ten refu matelas ken cong ke fo matelas ken berceau ke euh, deux tables de consultation six supports ten ref xa celmaxe butele saqna perfusion le locale ko jumerma dal kaga ten ref matériel fe andoona yee ten i mbudnu no poste de santé ne xaye ndiiki kam bagage kene ɓisiideena euh, foogum a limanaana in fop teno in way njaajëfalan a paax mbay simnan au passage euh, a jega tamit euh, kaa layna no maire fe i nan jëlin tamit yo monsieur le maire vraiment i ngidman a paax aussi yo monsieur le maire vraiment i ngidman a paax aussi no jeego ke andoona yee ten a fi'u bo calel ke iyo monsieur le maire vraiment i ngidman a pax aussi no jeego ke andoona yee ten a fi'u bo calel ke post de santé ne a mbaag o pare i ta ɓaat o genoox ak yeen bo vraiment équipement fe a garit eh, in ngidman to ñaanan moƴno ñaaxa ta damta in bo no ke moƴna ñof i affecté anel un infirmier i to toujours mbetanan électrification fen saaxle i fop a anda ye mairie compétence um foge ten électrification saax i mais je pense que en tant qu'élu local ta refan meen toute la commune doléance fe fogaam me a warano waag o porter mais andoona yee maaga warinan i o xeten quand même mais in way moƴano ñaax to moƴno yakara ten parce que Sorokh vraiment ke ta na soxla me ta refna fogaame eh, électricité yo saax a jeganga électricité activité leŋ waage développer maaga donc a impact a paax a paax no développement fen saax le i fogaame daal kene ten jeg'um ka layuma ten eh, ginwanga paax Ndof vraiment encourager parce que information ne oxe fadanan vraiment mais andoona yee a soxla e maaga merci et bonne continuation ndiiki koy kam kene ta layna ndigilo euh, Salam Vision moom a refo meen euh, pour fop saate ke fop tamit mais comme soroqa e u a lay anoor dispensaire fe a lay anoor école fe wala courant fe ndiiki dispensaire fe a jega jego fa ñaaj to in mom in ndefee xa politicien i contrer o leŋ peut-être a ɗom in den i njoytuwaayo mais comme a jega jeego fa da ñaaƴ na monsieur le maire fo équipe um nu nana kene Mbaye Faye a layna bagage kene fop a ngariida maaga i mbar o sant a den a paax ngidma den i parce que in moom comme exemple ne waagan ma layit xa tewanong rek i ndefu o ndewanongo nge na numaa a xeexange ka loola o cooxangaan ɗen ta a looxangaan a dal fo tiim a refanga xena joɗnel o looxnangaan ndax ne ta dal fo tiim ndiiki to oxu cooxnga a ñagit a reganganga put xano gimin oxu cooxnga a cu'ax a reganganga cu'ax xano gimin euh, comme a mbi'a acte ne na ɓisid bagage kene vraiment i mbaageeru dul sante a den euh, ngidma den a paax parce que i ndefee xa politicien i contre o leŋ i neewa sax pour contrat o kiin yaa mo hoɗatno fokkeroga jiɗga waaw mais i njega droit lolan saate in kon tamit kaw wene i loola a refanga ye a jega ka da mbi'na i mbarno mbaago layit euh, ndomercier a den a paax maire in way ngidmanga paax wo fo équipe of wo yoon toona fop sante'anga paax euh, bonne continuation euh, waagimo lay to ni'im a Doudou Fall parce que o vidéo ino ferana wo xooyaxam a jega ka ta layna fo mi Eh, peut être mun wayno jeegoke tiye moom waage ñof pas par pas yo a jega ka nu mbi'na nene matériel ke ngara fogaame matériel ke ngaranga a felanoga a felanonan et puis i cunga ke yoqna rek iye o ndango ndango in way ngidma nuun no pas-pas nuun fo góorgóorlu fe nu ngóorgóorluwa ndax koy tamit xana jeg solo pour i remercier yam iɗin jege mayi ɗonna ɗo min luɗul menu to comme a jega acte ka nu mbiya i mbaage ɗul sante a nuun ngidma ɗum nqeɗana nuun tamit ke refna objectif nuun nu atteindre euh, kene daal reeɗu émission ne xaye ke kam saaxle in way ngidma fop njaajefala fop mbege a ziare a fop vraiment kam ina ɓuta lool comme i commencé anga nu in ata matériel ke ndefna wonu dispensaire fe vraiment i mbaage dul félicité anun xenana nun koy continuation fe parce que comme nu ata matériel ke xay eñu njega pexey fa ando naye xan nu mbin bo hôpital fe ñaay ndeer courant ref ka ndeer solaire xaƴa nu njega pexey a jega ka nu pare na pour hôpital fe ñaay waaw mais vraiment i content a paax kam ina ɓuta lool te ñuy ñaanal naanum daal bonne continuation mu le maire xamal ko du fa équipe am fo duut faalwe andoona ye i soroko a jala foten in way content na a paax o vidéo fe andoona yee ta ƴuufna xooyaxamo a jega ka i mbaxtaan na comme nuun wene jafole koy i mbaage lu dul ñaanana nuun in way ñaanana nuun a paax daal ken nu mbugna nuun and yaasam suñu borom o faanna nuun fo ken yene'na no goxole fop suñu borom o motatinin euh, no barke yonen defe sallallahu alayhi en tout cas daal i kontaan a paax a paax a paax surtout Mbindof waaw waa Salam Vision owey njajëfala nuun tamit owey njajëfala nuun a paax no acte ne nqeɗana eh, nuun rek mebet ke fop a soti waaw kunu sumana daal to njegin yeena rek yaasam suñu borom a fadanin jaa ngeen jëf